أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الفضل والإنعام ذي الجلال والإكرام شرع الصيام لتطهير النفوس من الآثام وجعل شهر رمضان سيد الأيام فضاعف فيه الحسنات والأجور وجعل فيه فرصة للتقرب من العزيز الغفور والصلاة والسلام على على نبينا محمد خير من صلى وسام وداوم على الخير واستقام وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى به على الدوام أما بعد أخواتي العزيزات السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñuy déglu ginnaaw bi ñu sante buur bi tabaraka wa taala ci bépp xéewal boo xamante ne bi xéewalee nañu ko di julli si suñu sang muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu delsiwaat ak yéen ci suñu waxtaan bi nga xamante ne bi moom lañu fas yéene di amal bis bu nekk ci weeru koor wi muy ma saimat ànd ak way woor yu jigéen yi di jéggalu buur bi tabaraka wa taala di leen jéggalu yéen ñi ñuy déglu ci ñaari fan yi nga xamante ne bii amoon nañ ay ngànt ba mujjeewuñ ko amal di wax ne rek tey dellusiwaat nañ ak yéen fas yéene àggale tomb yi nga xamante ne bii moom la ñu jëkkee woon incha allah muy laay biirante yi nga xamante ne bii ñu ngi koy jokkalante ak suñu mbokku jigéen yu jullit yi nga xamante ne bii ay way woor lañu ñu waxoon ci waxtaan bale paase ne dañu war a sant buur bi tabaraka wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may ñu fekkee weeru koor waxoon nañ ci ne aussi ñu bañ di bëril lu ñuy lekk ci weeru koor bi ndax loolu taxu tëjug weeru koor waaye tey incha allah fàttali bi nga xamante ne bii wala laay biire bi nga xamante ne bii moom la ñuy laay biirante ak yéen mooy ñuy moytandiku nelaw yu bari yi ci weeru koor ñuy moytandiku nelaw yu bari ci weeru koor rawatina nelaw yi nga xamante ne bii sax daf ñuy yóbbee ba ñuy faatee waxtu julli ndax li ëpp ci jigéen ñi dangay gis weeru koor wi yëpp daanikaam surtout ak ni mu tombeek vacances bi nii dañuy veillé guddi gi nekk ci télé yi nekk ci waxtaan yu ñàkk fayda yi nekk ci lido yi nekk ci jeu yi bañ ne asalaatu xayrun mina naw mi ñu door a dem tëddi bu ko defee nag waxtu tisbaar soo moytul dinañ ko faat boole kook tàkkusaan wala ñu faat tàkkusaan boole kook timis te loolu wax dëgg yàlla gàttañ lu la ci àqu buur bi tabaraka wa taala gàttañ lu la tamit ci yaa ngi xañ sa bopp xéewal bu mag a mag a mag boo xamante ne bii ëllëg di nga ko réccu ndax buur bi tabaraka wa taala daf la indil weeru koor ngir nga njëkkante ci lu baax ngir nga ngir nga yokk say tuyaaba kon yaakaar naa ne lii kon bu ñu ko defee rek day nekk loo xamante ne bii lu ñuy xañ ay tuyaaba yu bëree bëri bëri la même bu fekkente ne bii waxtu yi sax dafa jot nga jug ko julli ko ba pare delluwaat tëdd di nelaw mbokk mu jigéen mi loolu nekkul lu gën ndaxte dañu nekk ci weer woo xamante ne bii weeru njëkkante la weeru njëkkante ci def lu baax tey dañuy xool ñun fii opérateur yi fi nekk kenn ku ciy def promotion muy Tigo muy Orange ba Expresso ku ko yëg rek surtout boo yëgee ne 100 pour cent la di nga def tout pour nga dem jënd crédit nga def sa portable pour boo amee boo jëndee 1000 francs nga am 2000 francs mais weeru koor moom mooy weer bi nga xamante ne bii moom la buur bi tabaaraka wa taala defal ñu promotion lépp luñ ci def rek da koy doubler ay double yoo xamante ne bii kenn du xam nu mu toll kon waruñu ko wax dëgg yàlla sàgganee ci ay nelaw wala ci ay toog ci ay grand place yoo xamante ne bii dafa yàq tuyaaba boobu kon weeru koor weeru njëkkante la ci li nga xamante ne bii moom mooy jaamu buur bi tabaaraka wa taala nekkul weer boo xamante ne bii dañu koy def weeru nelaw wala yeneen caaxaan beneen bi ci des mooy nga fexe ba profito ci bis yi nga xamante ne bii moom la la yàlla wërsëgalee ci weeru koor muy nag ay bis yu néew trop sax ay bis yu néew la ndax boo xoolee at bi nekk 365 jours 30 jours rek wala sax yenn saay du ko mat 29 jours moom la la buur bi tabaarak wa taala may mu nekk promotion boobu muy weeru koor bi kon nga fexe góorgóorlu ci bis yu néew yii ci fan yu néew yii ci benn weer bii ba nga fexe ba weer bii ëllëg yowmal xiyaam ak bis yi néew yi ëllëg yowmal xiyaam soo taxawee ci sa kanamu borom tabaaraka wa taala ñoom itam ñu ñëw taxaw bis ba nga xamante ne bii moom la buur bi tabaaraka wa taala di wuññi di génnee lépp lu nekkoon ci bàmmeel yi bis bi nga xamante ne bii moom la yàlla di génnee lépp lu nekkoon ci dënn yi ci ay secret bis boobu nga fexe ba tey bis yu néew yi ñëw taxaw ci kanam buur bi tabaaraka wa taala di la seedeel ñëw taxaw ci kanamu buur bi tabaaraka wa taala ngir di la ràmm te loolu mënuñu koo amee ci ay nelaw mënuñu koo amee ci nekk di jouer soo ba jant soo ci bis yu màgg yi mënuñu koo amee ci leen lu dul ci góorgóorlu topp buur bi tabaaraka wa taala suñu kemtalaay kàttan kon ñu fexe ba buur bi tabaaraka wa taala gis ci ñun lu baax ci bis yu néew yi te ñu ñaan buur bi tabaaraka wa taala mu nangul ñu ko ndax kat loolu jëf ju baax jooju ñuy jëf tey ñaan yàlla mu nangul ñu ko loolu moom mooy màndarga ragal yàlla bi nga xamante ne bii moom la yàlla di wax ne innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yàlla kat buy nangul ay jëf way ragal yàlla yi la koy nangul ñi nga xamante ne bii bi ñu koy def seen jëf yooyu ñu ngi ko defee ak ragal yàlla te it bu ñu fàtte ne koor gi li taxoon yàlla farataal ko ci ñun mu bari mu néew du dara lu dul ngir ñu ragal yàlla te yaakaar naa ne aaya boobu ñun ñëpp yàgg nañ di ko dégg bi yàlla di wax yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun kon ngir ñu am jëlee ci ragal yàlla moo tax buur bi tabaaraka wa taala wërsëgalee ñu weer wu màgg wu tedd wi kon ñu war cee góorgóorlu ci bis néew yi ba nga xamante ne bii ëllëg yowmal qiyaam buur bi tabaaraka wa taala wala bis yi dinañ ñëw taxaw défendre ñu kanam buur bi tabaaraka wa taala ba suñu aljanna mën cee taxaw. beneen bi ci des mooy ñu bañ a def muy juróomeel bi mooy ñu bañ a def suñu bis yi ñuy woor ak bis yi ñu woorul mu nekk benn. ñu bañ a jël weeru koor wii melal ko ne comme yeneen weer ya nga xamante ne bii nekkut weeru koor ndax mbokk mi soo wooree say nopp daa war a woor waroo cee déglu darawul bon te li metti nag mooy tey da ngay gis koo xamante ne bii mi ngi woor mais mi ngi passe temps am ci déglu musique ba mi ngi passe temps am ci déglu la nga xamante ne bii daf koy lor wala dafay wàññi diineem wala dafay wàccee ngëm yàllaam waaye nekkul loo xamante ne bii lu koy yokku la kon soo wooree say nopp daa war a woor woor ci bàyyi lépp loo xamante ne bii naka sudul noonu la mu bañ kaa déglu lépp loo xamante ne bii day wàññi tuyaaba kooram mu bañ koo déglu lépp loo xamante ne bii day dox diggam ak topp yàlla mu bañ kaa déglu waaye tamit ay noppam woor ci déglu li nga xamante ne bii moom mooy alquran di déglu alquran di déglu lépp loo xamante ne bii tudd buur bi tabaaraka wa taala ak bàkku ko ak kañ ko la di déglu lépp loo xamante ne bii luy waaraate la loo xamante ne bii lu koy jegeñal ci buur bi tabaaraka wa taala lu koy yokk njëriñal àdduna ak alaaxira soo wooree mbokk mi say bët dañoo war a woor ci xool mbooleem loo xamante ne bii boo ko xoolee buur bi tabaaraka wa taala dina la ci bindal bàkkaar wala loo xamante ne bii soo ko xoolee dina wàññi sa tuyaabay koor nga góorgóorlu ba doo ko xool te nga jël sa xef yi tegal ma ko ci sa gët yi tegal ma ko ci téere buur bi tabaaraka wa taala bi nga xamante ne bii moom la ñu wàcceel ci weeru tedd wii alquran bi ko buur bi tabaaraka wa taala di wàccee mi ngi ko wàccee ci weeru koor kon weeru koor weeru alquran la kon sa bët yi nga lawaay bu mu teggeeku ci téere bu tedd bii di alquran ci weeru tedd wii di weeru koor yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci weer wii ñu nekk jibril da daan wàcc alayhi salaam mu daan jàngalante ak moom ak alquran muy nafar ak jibril di jàng alquran ndax weer wi mooy weeru alquran te bul fàtte ne comme ni ñu ko waxee rek promotion la boo xamante ne bi bu fekkente ne bi tey yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne képp ku jàng benn xarf ci téere buur bi tabaraka wa taala yàlla dina la ci bindal fukk tuyaaba waxuma alif laam miim xarf la waaye alif xarf la laam xarf la miim ga xarf la mu nekk fanweeru tuyaaba kon jàppal na te yow soo ko jàngee ci weeru koor woowu au lieu ngay am fanweeru tuyaaba ci alif laam miim boobu mais di nga ci am 60 wala ba 90 tuyaaba kon suñu bët yi ak suñu làmmiñ yii làmmiñ itim dafa war a wóor dafa war a wóor ci jëw dafa war a wóor ci rambaaj dafa war a wóor ci fen te loolu yëpp tey ñun maal asaf da ngay gis day am ci ñun jigéen ñi ndax barab yi ñuy toog la xam nga wóor ba pare groupe boo dajaloo di dem toog ca taatu garab gi gën a féex ci koñ ba ku romb nga jëw ndax tooguñu jotaay boo xam ne bu fekkonte ne bi sax jotaayu lislaam lay doon jotaay boo xam ne jotaayu zikr lay doon jotaay tudd yàlla fàttalante diine lay doon konoon sax du am problème waaye jotaay ba toog la kenn romb nga wax kële wax ki ci des wax bu ko defee sos commencé fen yi commencé jëw yi commencé na rambaaj yi commencé na ci bëccëgu weer wu tedd wi nga xamante ne bii moom mooy weeru koor nekk weer woo xamante ne bii dañ cee war a njëkkante ci def lu baax ak wax lu baax kon suñu bët yi nañ ko teg ci téere buur bi tabaarak wa taala suñu làmmiñ yi nañ koy nekk di ko répételoo li nga xamante ne bii moom mooy tudd buur bi tabaaraka wa taala ngir yokk suñu tiyaaba ci weer wi ngir yokk suñu tiyaaba ci weer wi nga xamante ne bii bu ñu rawee est-ce que dinañ ko àggale sax ba pare est-ce que ren incha allah dinañ ko wóor ba mu jeex loolu la ñuy ñaan buur bi tabaaraka wa taala waaye tey bu ñu rawee ren jii est-ce que déwén dinañ ko dabaat est-ce que kenn ci ñun mun na assuré boppam ne déwén dina fekkee weer bi ba mën a lépp lu ko rawoon ci weeru ren bi mu remplacer ko wala mu def lu ko raw loolu yëpp nekkul loo xamante ne bii kon wóor la mbokk mi moo tax ñu góorgóorlu bis bu ñu ci fekk rek ci weer wi bis buñ ci fekkee rek ñu yaakaar ne duñ fekkee ëllëg. ba loolu war ñoo mën a ñaax ba ñu mën a gën a góorgóorlu ci topp buur bi tabaaraka wa taala ci weeru màgg wi lii mooy li nga xamante ne bii moom lañ doon laay biirante ak yéen ñuy ñaan buur bi tabaaraka wa taala yàlla nañu may dégg ak topp di ko ñaan moom buur bi tabaaraka wa taala yàlla nañu nangul suñu koor nangul ñu suñuy julli nangul ñu suñuy ñaan nangul ñu bépp mbooleem jaamu yàlla boo xamante ne bii def nañ ko te itam ñu koy ñaan lépp lu ñu def rek yàlla nañ ko def ak yéene bu sell yàlla wërsëgal ñu def ko ak yéene bu sell ñu def ko ngir rek sàkku ci moom jëmmam ju tedd jooju moom buur bi tabaaraka wa taala mën na ko yàlla nañu ko defal aqul ma tasmaun wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu